ñoo ngi fii ci Pikine fekk fi ab daral bu ñu ràññee lool ci wàllum jaay ak jënd li nga xamante ni moo di ay jur rawatina li si mel ni xar nag ak béy nekk lañ fiy nemmeeku bu baax a baax daral bi ñu dippee ko daral des petits ruminants de Dalifort am cosaan bu yaatoo yaatu waaye tey lañu fi indi bokk na ay jafe-jafe yi nga xamante ni ay liggéeykatam ñi ngi fi di ko yendoo di ko dundee bés bu yàlla sàkk te mu tël lool ñu am ci ay saafara ñoom ñile bokk si ñi fiy liggéeyee di ci ay kàddu di xam ne bu ñu amee yile coono kenn rek moo leen ko teg mooy ko jiite seen bile daral di wuyoo si turu du Talla. waaw fii euh, mooy marché bi gën a mag ci senegal ci ci jur si mooy daral bi gën a mag ci ci Sénégal mais ñun ñi fi nekk di jur ñu nga gis ñu bëri ni yëpp maanaam amul kenn koo xamante ne si marché bi amal na la rend rendement benn kese la la àndal mooy ki ko jiite mooy Mamadou tàlla moom kese la marché am rendement parce que li fiy bénéfice di génn ci marché bi yëpp ci poosam lay jëm. waaw moom Mamadou Talla benn waay la boo xam ne papam nekkoon na fi comme ni fi suñ papa nekkee woon mu ngi liggéeyee Seras ay jamono oh, mag ñi jël ko dénk ko daral bi du élection du dara nag dañ ko dénkoon rek mais depuis fi nekk parce que 2014 2014 2015 côté lañ ko dénkoon. bi mu ñëwee tamit euh, mu wooñ ñu ñëpp nañu dafa bëgg a defal daral bi liggéey daral bi ñu nag comme fi lañ xam ku ñu woo ci defal daral dañ lay wuyu bi mu ak bi njëkk def bi mu ñëwee daf ñu laaj euh, ñun ñëpp jeunes ñëpp ku nekk di joxe 5000 francs carte membre nga dagg carte membre 5000 francs euh, mu lu luñ gis suñ kees yi nga gis ñu yeew xar yi kees bu nekk di dagg 2000 francs par weer loolu kii fii nekk ci kees ëpp na 5000 kees loolu yëpp alal boobu yëpp yëpp yëpp ñun bi ñu koy def na dañ foogoon ne dana ci kees boo xam ne dinañu jëriñ mais dañ gis ne loolu lépp après bi ñu ko defee day day mel ni daal dafa mel ni genre robaayam quoi. suñ ko defee ci poosam la jëm ñun duñ gis fii ku fi feebar dañ lay yelwaanal ku fi dee dañ lay yelwaanal maanaam amul benn remonte amul benn financement boo xamante ne si amul benn financement boo xamante ne si fii dina ko génnee def ci fii amul hôpital boo boo fu daggoon ci loxo da ngay dem Dominique wala nga dem beneen hôpital Dar Salaam wala wala fenn fi daal maanaam euh, gox boo xam ne ñi fi xëy ñi fi xëy ñëpp daal presque mën naa ne dañ leen dañ leen def comme ay kii daal dañ leen def comme ay baay ma waaye biñ demee ne ba découvrir xam ne carrément waaye suñu xaalis def ko fi mu ko war a def euh, ñu reporté bëgg loolu dakk am na lu deñ mais am na lu des parce que 2000 francs bi ñu nga xam ne ñoo ko doon génnee di fay suñu kees yi fayatuñ ko euh, fii dafa ay douze douze di génne chaque jour pour soixante dix mille loolu rek bu ñu ko tegoon ci kees dina jëriñ waa dara parce que douze yi da ngay fay cinquante francs cent francs fii am na pël yoo xam ne bu ñu indee seen xar fi la fanaan ak ci conditions yu métti nag jullee dañ fi nekk conditions yu méttee parce que fii amul amul kamek amul caméra surveillance Marcel boo xam ne njiit bi fi nekk dafa favoriser sàcc mooy moomu Talla dafa favoriser sàcc yi parce que euh, bu amee xam-xam tamit peut dafa soxore waa fii parce que fële mu nekk fi mu liggéey foofu la defal fa la defal privilège bu baax parce que boo xoolee dara daf ko daf ko tëj comme li ma la expliqué sànq ci problème mu terre bi maximum bi ñu kii teer bu doon njiit bu baax la dina fexe yoon bi fi nekkoon. même bu dañee tamit dina am dina beneen yoon boo xamante ne du jafe pour ñu tey fii boo yorul oto boo dëkk tey boo oto doo fi ñëw parce que yéeg pont bi rek ci jigéen dafa metti maanaam intérêt dara daal doxu ci dara dara dara amul benn tey bii li xaalis li muy bëri bëri bëri amul benn bant boo xam ne mos na ko jël ne lii ci xaalis dara la naa ko delloo ci dara lu amul waaw man am personne man am personne avant may dugg ci lii dama ko woo téléphone ne ko da ngay ñëw ñu waxtaane dara la mais daf ma convoqué bureau bokk du ma ñëw sa bureau parce que bureau seras la te seras ñun seras ak daral dafa am dafa am différence bokkul seras dafa am différence bu ko woo téléphone ne ko da nga ñëw daral ñu waxtaane mbiru daral parce que il est temps pour ñu waxtaane daral parce que bu ñu nekkee ay kilifa cër bi nga am daral ñu am ko daral nekk ay jeunes yoo xam ne def nañ fi plus ay 40 ans mosuñu am ak yoon problème ku nekk ci marché bi defi presque 40 ans wala nga defi 35 ans mosu am ak yoon problème kon kon dëngoo mosoo liggéey fenn fudul fii kon je crois que jub nga dëngoo woo nañ ko mais boo ko woowee moom dafa dafa mel ni genre buur daal moom dafa mel ni genre buur day toog fi mu toog da mënu toog huit mois dugg ci marché bi moom mënu toog huit mois dugg ci marché bi chaque jour bu xëyee Seras su wàccee dem yoonam amul lu ñu intérêt te gis nañ tamit bi fi ministre bi ñëwee dem Seras seeti ko. ministre la eh, ministre de l'élevage ñëw na fi dem Seras seeti ko waaw mooy ministre bés bi Ousmane Sonko samp rek waaw affaire bi ñu ko bi ñu ko yëgee en fait commencé nañ ko danañ ko xeex ba man sama jëm en personne ma porté ko plainte tribunal tribunal. jël euh, kii bi euh, plainte bi jox ko police police def seen euh, def seen woo ma laaj ma laaj ma ñaar témoin mu yóbbu ñaar témoin mais dañ gis ne bi ñu demee procureur Seydi bi nekk Guédiawaye dafa dafa classé dossier bi affaire bi nag jaaxaloon na waa marché bi yëpp parce que dossier boobu classement warul woon am bu ñu defee ne am na ko tooñ bu dee man la war nañ ma jàpp teg ma ci yoon bu dee moom war nañ ko teg ci yoon parce que réew la boo xam ne ku ku fajal sa bopp eh, dem procureur pour war ñu atte atte wuñu loolu daf jaaxal léegi nag yàlla def ñu koy xeex di xeex ba nguur gi fi nekkoon jóge fi am beneen nguur bu ñëw ñu ci moom yaakaar bu baax mooy nguuru jomaay bii ñu am ci moom yaakaar bëgg mu saafaraal ñu suñu jàngoro parce que dañ bëgg daral bi ñu teg ko ci yoon teg ko ci élection ñuy voté koo xam ne ku fi nekk deux ans soo liggéeyee ñu xam buñ la voté laat ñu voté daal la bu fekkee ne doy nga ñu ñu tegaat la fi boo doyul ñu tegal parce que euh, actuellement àdduna bi kenn nelawtul ku liggéey xam nañ amul benn julo boo xamante ne si di nga soxla financement am ko wala nga tëdd fu baax kantin yi magasin yi fi nekk néeg yi ba juróom dañ ko luyee quarante mille lañ ko luyee julo loolu c'est pas normal dafa amoon ay avant mu fiy ñëw moom tubaab bi defoon ngédd ay ngédd bi ñu ne dafa defoon ay ngédd nga xam ne julo bi léegi bu jugee àll ba bu ñëwee dugal xaram mën na dem tëdd na xel mu dal xam ne xar boobu fii ak nit génne ko du génn mais léegi danga nga ñëw wàccee ci plénaire bi xar même bu kenn jul mën a dox dem loolu lépp liggéey yoo koy def te xaalis bi fiy jógee waroon def loolu mais ana boobu xaalis tinel bi fi waa APIS defoon parce que jusqu'à présent en plus tamit APIS jaar na fi xaaj suñu dara ñetti yoon APIS ñu gis ne bu la fekkoon ci kër sax nga luyee fa da lay neexal mais APIS samit bëgg nañ xam neexal nañu wala dañu neexal bu demee benn côté wala loolu ñoom bëgg nañ xam daal bëgg nañ xam luy jógee suñu daral eh, bëgg nañ tam état xam ne sañ-sañ bi mu am daral ba war ko jiite ñun moom lañ fi am suñu papa ak papaam lañu woon ëppalu wuñ ko fi dara mais tam ëppalu wuñu fi dara waaw te loolu sax ñun ku nekk président intéressé wuñu xam lu ñu intéressé ku teg say mbir ci yoon ku jub jubal comme ni ko suñu nguur gi soxlaa ku jub jubal lañ soxla comme yàlla def na ñun ay ndaw lañ amuñu fenn fudul fii fii jën ñi ngay gis tey su ma woote woon jën ñëpp dañuy kii mais comme euh, sànq lañ ma woo xaw ma kii mënu ma woo euh, ñëpp ñu mais tey bu ñu woote woon def kii nga xam ne carrément ay jeunes yu am ambition lañ yoo xamante ni si ku ñu jàppale ñu dem dañu bëgg nag ku ñu jàppale. Mamadou Talla nekk ki nga xamante ni dañ koo dénkoon marché bi ci ay at yu takkoo takku tey jii nii képp ki nga xamante ni yaa ngi yeewoo ci marché bi yaa ngi yëkkati ay kàddu di ko jëmal ci jëmmam ngir mu daal di leen fi bàyyil seen marché bii ba tax na bile ndaw nekk ki nga xamante ni yàgg na lool si bile marché mi ngi dikkaat bu baax dañuy xamle marché bi ak coono yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkontele bés bi yàlla sàkk. waaw man de année bu may ñëw dalal 94 la ndax parce que dalal fii lu bëri fekk nañ fii ndax parce que ñun fii lañ màggee lépp lépp lu xam fii lañ ko xamee. fépp ñun tukkiwuñu demuñu fenn demuñu Italie damuñu fenn ñun fii mooy suñu Italie fii mooy suñu France fii mooy suñu fépp na parce que ñun marché bi lañ am daral lañ am fii nag moom ñu ngi fiy jaf ñu ngi fiy dund ay jaf-jaf yu métti ndax parce que moomu tàll muy mu jiit daral bi daa am lu ñëwee fii moom deux deux mille deux mille douze deux mille la fi ñëw ba fi ñëw fii lañu fekk fi ñëwee muy day organiser daral bi depuis départ muy day organiser daral bi ñun ñëpp ñu ànd ak moom mu dem ba si biir moom lépp lu muy def si daral bi duñ ci wax dërëm lépp lu mu fiy def du si rendre compte kenn moom comme buur la jàppee boobam fii fii moom ba mu fi nekkee moom da nga fi euh, da fi am problème sax moom mu dem si yoon ku la motif la foofu noonu gars yi ñoo gisee du kenn kenn du la laaj mais loolu lépp ñu ngi koy dund si dund si marché bi ñoom ñu dem ba si kanam am lu ñuy teg si marché bi mooy ay cantine cantine yooyu noonu ñoom booy ñëw laaj ñu kenn laaj ñu kenn de ñoom dañoo ñëw rek teg cantine ñun ñi xam ne ñun daral nekk na fi ay trente ans ay trente cinq ans kenn mësuñu jox financement kenn mësuñu eh, kenn mësuñu laaj kenn mësuñu wax daral bi ni muy doxee mais ñun nag ñun ñoo dem ba si biir volonté wu gannaaw ñun si daral la ñuy xëy daral la ñuy gont ñu ñëw ñun ay doomi daral lañ ñu ñooy doomi daral wante moom day jëli ñeneen ñu ñii ñooy doomu dalal wala ñii ñooy ñii ñooy juley fekk du du dëgg moom affaire affaire buur lay def fii ci si euh, dalal bi na ko na ko média yëpp yëg affaire buur la fi def affaire ségrégation la fi def mais loolu nag ñun war nañ si mën a bi war nañu mën a na parce que ñun fii nii ñëpp benn la ñëpp ay sénégalais lañ mais kon nag ñun luy defar si marché ñun loolu lañ bëgg. waaw bi fi waajuram jógee nee naa la ku ñuy wax amat Sall moo remplacé waajuram. Amar Sall dafa décédé Mamadou Sow remplacé Amar Sall boobu Mamadou Sow bi mu demee ba feebar moom moo xam ne mënatul léegi quoi mu proposé mag ji ne leen am na doomu Amatalla kii nekkoon ki nekk Seras mu Talla nañ ko woo dénk ko dara élection falu ko dañ ko woo dénk ko waaw mais biñ ko denkee tam bi mu ñëwee dafa def li mu njëkk def lu salte mooy dafa jël quelques délégués yoo xamante ne si jàpp nañ ne peut-être ñooy magu daral wala ñu ëpp lamiñ ci daral bi mu leen di parti li muy jël ci ñun. li muy jël ci ñun suñu alal di leen ci paar parce que kanti yi ma la wax ne la fii boo naa la woon di ngay compter kanti yi di nga fi lu ëpp quarante quelque kanti kanti bu rek di fay bi gën a ndaw di fay trente cinq mille loolu ñaata la ci xaalis mais loolu engagé wu ko dafa jël ñi mu àndal nga xam ne mooy délégué yi ku ci nekk nga am ñaari kanti wala nga am ñetti kanti nga xam ne yow su weer dee yow loolu yaa koy fayeeku def ko sa poos léegi moom ñooñu ba ilaa yoomi diin duñu wax ñun nag dañoo dem ba découvrir xam ne carrément parce que bu fekkee de benn camion saaraan na fi ray fi onze xar borom xar yaa ngi ci ginnaaw après mën nañ dem ñu wax jour combat Tapha Tine Eumeu Sène man fekkee ma ko dafa fekkoon ma génn dem Mbour mais amee kut fukkut ma woo ne ma na camion bu saan ray fi treize xar ma ne ah waaw baax nañ déglu léegi borom bi mu ñëwee si moom euh, yërmandem yëkkati na deux cent cinquante mille joxe mais jusqu'à ba jusqu'à ñooñu bi ñu bi ñu euh, analysé ñu oyfal ñoom xam ne ndogal yàlla oyfal dañu war a jox un million deux 600000 la leen jox te borom camion bi jox na 250000 kon mën nga ne xaalisu daral bi kon 350000 moo ci jógee ci foo xam ne euh, camion bu jógee àll ba ñëw di nga fay juuti 18000 fay 5000 francs boo xam ne dafa dem ci war a dem ci keesu daral bi xaalis boobu yëpp yëpp bu ko doon dajale normalement ñooñu dafa war a am dimanche lënd ñu dem banque fay leen ci yoon mais am na ci ñoo xam ne ba tey jii ñu ngi somme ci borom xar yooyu am na ci ñoo xam ne ba léegi départ bi amoon. amatuñ ko waaye léegi loolu ban genre liggéey la handicapé day bett handicapé day bette mën nga xëy suba handicapé man suur lay dawal xaw ma suba lu may arrivé léegi yow bu fekkente ne fi ngay liggéeyee nag léegi yow yaa ngi fay génne sa ñaq di fa def sa ñaq di def ci benn kees loolu jariñu la benn di ko lekk mais loolu tamit ci ban lañ nekk ban réew lañ nekk ñu am lu ñu naqari lépp muñ nag nekk ay jeunes parce que ñi ngi gis nii kenn néew ci doole mën nañ faj lu bëri li ñu bëgg faj àdduna mën nañ ko faj. ñu am lu ñu naxari boole lépp dem ci procureur de la république porte ko plainte pour que procureur jël dossier bi classé ko en xamuñu nag lu mu classé ko en civil affaire daf ñu daf ñu jaaxal parce que fii amul problème mu ethnie amul problème mu naar du séeréer ñun ñun ñëpp benn lañ xeet yi fi nekk pël pël a ngi nii taxaw bu la neexee jël ko julo la day dem xar léegi xar la ma jaay nii day dem di indi xar di indi. mais amul ku gis sa bopp ci daral te seen xaalis dafay dugg ku indi camion di nga joxe junni boo xam ne day dem ci benn kees wax dañ la dañ la dañ la diggoon ne la dañ la koy dencal bis boo amee problème que loolu war la dimbali soo feebaree mu faju mais wallaahi laas même ki mu remplacé moom bi mu deewee mooy Mamour Sow moom yónneewul de dafa yor këll moom chef bi di ko yalwaanal est-ce que loolu rafet na léegi ana xaalis boobu ñu doon dajale sama mbaar bi da doon fay 7000 parce que dañ ne mbaar 5000 lay fay weer kees di fay 2000. mbaar bi di fay 7000 sama kees di fay 2000 su ma sama gars yi nekk fi yëpp dañu daan ñëw parce que des fois nga ñëw nga gis paa yi rek nga wut foo jaar dama la lay eh, kaay dama lay woo jot ak yow pour nga fay mais bi may def loolu nag dama jàppoon ne xaalis boobu ñuy fay dina am lu mu jural mi ngi mi ngi fenn quoi parce que normalement événement Tabaski bi bu jotee tey ñun waruñu woon soxla xa dimbal bu jóge ci état ñun ko woon soxla parce que li fi jóge lépp lépp lépp war nañu def tey bu événement jotee ñu ne Fallou Guèye am benn 10 millions yi nii banque bi sànq Seras moo la koy liggéeyal parce que xamante nañ suñu biir quoi fii xam nañ ko liggéey xam nañ ko liggéeyul ñun rek jarul ñuy audit ñuy ñuy kii kenn xam nañ ko ñu baax fii xam nañ ñu bon am na loo xam ne ku baax bokku ci parce que fii koo xamante ne si liggéey nekkul si xel amoo amoo intention wu yeew xar amoo intention wu yeew xar amoo intention wu dugg ci lu baax lu ñuy def waaw léegi nag ñun dañ bëgg changement lañ bëgg mu am suñu daral te li ko mooy jëlee fi kii nga xam ne dafa sax kimil de fonction parce que mënul nekk Seras nekk fii te nekkul fii sax day toog fee ñu ko jox xaalis parce que foo toog huit mois doo fa dugg bi mu fi gëjee daaw bi fi bi ñu bëgg a tabaski la fi gëjoon ba bi mu fi jàppante ak gardien bi ci problème bu 2000 parce que man man euh, du ma liggéey di jox kenn muy lekk sama xaalis bi ma yaakaaree ne ñu ngi koy denc bu baax daan ko joxe mais bi ma demee ba xam ne bi muy dugg njublang la ci ay ay sàcc lañ joxetu ma sama xaalis may jënd xar benn jour génn ko ci biti gardien di naa fay. ma jàppante ci ak moom mu dem wuti médical yóbbu ma ci yoon jour boobu la fi duggaat te boobu ak léegi que def na léegi mu def set mois sax boobu ak parce que affaire bi am na am na am na ba tribunal jour mat senegal Cameroun ci coupe d'Afrique bi lañu tribunal doog ate maag booy bi. ba ka kam kaan beeg léegi boo ko tuddee ñaata ñaata mois la ba léegi tegaatul tànkam dara la amu fi soxla am na fële bureau mais boo doon bureau bi tey boo motul ay mbuut ñoo lay dàq amu am fi soxla. maanaam daf ñu bëgg a moom daal doy na waar daal bu ci état waxul nag bu ci état état bu ci waxul lu fi am lu fi am procureur Seydi mooy mooy responsable loolu moom na ko Sénégal yëpp xam. ñoom ñi le nekk ay jaaykat nekk ñi nga xamante ni dañuy yar ay jur yàgg fi lool ci bile marché di jànkonteer yi ay guddi yu doy waar rawatina sacrifice yi nga xamante ni moom la amal bés bu yàlla sàkk tax na tey jii ñi dem ba sës di yëkkati ay kàddu ngir ñaawlu bu baax a baax taxawaayu seen njiit ngir mu abal leen te ñu ut yeneen njiit yu yees. waaw lu métti rek la ñuy dund ci daral Sotiba bi parce que section bu bon lañ am fii. suñ njiit moom du tàla moo fi jiite en même temps moo nekk chef personnel Seras so Seras n'est-ce moo nekk fi en même temps mu nekk fi benn groupe boo xam ne maanaam rey nit dundee lañ bëgg a nekkee ñun jeunes yi ne fii dañ ñu bëgg a rey di ñu dundee ci loolu mënul continuer ay cantine ngi fi yoo xam ne ñoom ay ñoo moom moo fal ñu koy fayeeku ñu ne ñooy délégué dara yi man jàpp naa ne ñooñ duñ ay délégué parce que délégué marché da ngay déglu waa marché bi lii seen xar nga di ko jooy muy yegg fi mu war a yegg parce que ñun euh, xar bu fiy génn guddi di nga fay mille francs bu 19 heures jotee di nga fay mille francs nag dina fay 3000 kees yi ngay gis kees bu ne dina fay 2000 francs par mois kees yëpp na 10 000 kees ba pare euh, amul benn jeune bu ci gis boppam amuñu kees ku fi feebar dañ lay yalwaanal mbaxana la ñuy yor di la yalwaanal. ba bi loolu jàllee moom ci jëmm boppam nu mënul nanguwul rendre compte kenn moom ñu jàppewul boppam président buur la def boppam bu doon lu doolee faj kese mun nañ ko fajal suñu bopp même pas deux heures de temps ndax ki ragal nekku ci yaafus nekku ci mais nag comme dañu nekk ci dëkk yoon dañuy bëgg yoon dox suñu digg ak moom euh, am nañ yaakaar nag parce que bu njëkk fu ñu ko mën a yóbbu dañ koy fekk koo xam ne si juba ku jubadi la ku ko uuf bari na fu ñu doon dem fu ñu demee bu ñu déggee wax na ñu feeg nguur gi fi ne moo fi ne mënoolu leen ko dara te effectivement li ñu wax dëgg la ndaxte bu doonte ne yoon doxaloon na yoon heure bi ñun ak moom taxalikoo nañ bu yàgg leneen la ñuy wax léegi nag loolu yëpp amul ba leneen am na muy nguur bu bees bi ñu woote ñu def slogan boo xam ne ñun am nañ yaakaar baax mooy jub jubal jubanti nañ ñu jubalal fii jubantil ñu bu ko bu loolu bu ko yoon deful nag a ah, ñun dinañ ko jéngul suñu bopp boobaanu luñ luñ ci góobee nañ ko gar parce que booba état mooy responsable fu war a yuuxu yuuxu nañ fa dem nañ média télé fu télé bu ne dem nañ fa dem nañ émission ataaya fu ne teg nañ fa suñu tànk da nag euh, loo gis am fu muy yem bu bu naree dépensé waat level beeg moom dañuy jàmmaarloo ak moom nag lu ñu am jël parce que nag ñun lii fii mooy suñu teraanga duñ nangu benn nit di ko yàq waaw parce que ba mu fi amee lu jar dindi ñun jeunes yi ñoo volonté wu rayante loolu deñ fi gisoo fi ku këf tu jàmbur gisoo fi ku ñëw sàcc xaru jàmburati dem te bu njëkk loolu yëpp dafi doon am ñun jeunes ñoo volonté wu di ko xeex fii nit ko am problème amu fi benn AFP lañ am fii mu ngi fii kooku bu doon te ne daral nit ñu lëjë fi ne mënul régler daral nit ñu baax a fi ne nit ñu juba fi ne suñ problème mooy njiit yu bon lañ am ñu bëgg nag état ñëw ci nu mu gën a gaawee lijjanti suñ problème bu ko deful ñun jeunes yi dinañ ko lijjantil suñ bopp bu boobaa mën na demee neneen. waaw euh, tabaski bi comme li ma la yàq na marché bi parce que léegi. pour jula ñëw fi tey te boo amoon cent xar amoo espace boo ko def fii da ngay obligé dem ay liberté 6 parce que foofu yëpp sécurité ci yow lépp lépp rek ci ñàkk liggéeyam la parce que daral bi xaaj bi mu ko xaaj gis na tali bi jaar fee ci kii bi war woon jaar fële biir Seras la waroon jàpp parce que Seras am na bayal boo xam ne parce que après boo demee tey dañ fay dañ fay football mais bëggoon na xeex bëggoon xeex Pape Diop bëggoon yàq place am moo tax mu obligé jaarale jaarale tali bi fii lépp rek ci soxoram. lépp ci soxor moom daal njiit la boo xam ne dafa ñëw fii maanaam ni ma ko mën ti dee ko ñëw pour jéem a naan suñu deret daf ñu naxoon nag parce que dafa ñëw wan ñu kanam boo xam ne ak wan ñu jëf boo xam ne nekkul mais nag nit ki boo koy nax ba da ngay benn sàmm mu yeewu ministre bi ñëw na fi dem Seras mu ne ko di ñëw daral mais boo ñëwee di nga gis pënd ak poussière ma bëgg xamal ministre bi fii seen micro leeral bi boo xam ne moom mooy poussière bi. ñun ñooy suuf si ñun ñi nga xam ne bu nawetee ñi ngi fi bu noree ñi ngi fi fi la ñuy liggéey fi la ñuy ñaqee moom mooy moom wax ji mu wax ministre bu ko ministre jàngatee dina xam ne njublang mooy wax ministre bu analyser waxu waa ji parce que ministre laaj ko dara ci dara mais nee na ko boo ñëwee dara am na ñooy déglu am ñoo war a dégg kon moom xam na ne ministre moom saay-saay la te mi ngi alerté ministre bi mi ngi alerté moom daal boo jàngatee wax boo jàngatee waxam bu ko ministre bi jàngatee dina xam ne njublang moo doon wax ak moom triant moo doon wax ak moom ku jubadi moo wax ak moom ku toog suñu alal nag moo doon wax ak moom mooy du Talla waaw jóge fi rek day yombu parce que boo fi nekkee pendant huit ans neuf di dajale chaque mois sept millions ñu xëy rek ne la demal loolu day neex day yomb trop déedéet suñu xaalis ak abis li mu fi jaarale mais loolu moomu ko euh, abis nañu war ne nañu nekk ba yéen waa daral lii dagg naa fi lii def naa fi douze parce que douze mille abis ko fi def douze abis ko fi def tali bi nii mais yooyu neexal yooyu daral bi abis na ko xaaj lu bëri fii. ko laal lu bëri fii laal ko ci digg bi fële mais loolu lépp terrain bi ñu doon sange xar yi fële nga xam ne sama papa moo ko joxoon gars yi doon sang xar terrain boobu ci dara bi la bokkoon abis waaw ah, ñëw ko rek jël noonu noonu xam nga affaire yi tamit loolu yomb de ñëw rek dem nag day yomb dañu soxla audit ñu audité ñu ko ñu ne alal dara fii la jógee bu alal boobu génnee ñu teg ci loxo yu leer nañ ñu dimbali daral parce que fii seen boo fi joxoon 10 millions kële julo la day dem àll ba fii pël bi taxaw julo la da ngeen di ñëw sax fekk ma jëloon ci benn xar jox ko sama benn client may te loolu mu loolu sax du yoon. normalement ñun war nañu fi banque boo xamante ne si da ngay dem ci banque bi jël xar jël xaalis rek automatiquement fay pël bi mu dem mu dem toog pël def fi 3 jours wala boo ko waxee tey cooro bu métti lay dund parce que xelam du dal boo indee fukki xar boo motul 8 jaay wala 7 yenn yi dina réer yi dañ que afi jël dóoree xaru jaa bu ñu la gisul nga kenn du la détecté te Sénégal àdduna dafa dafa passé foofu léegi àdduna dafa passé léegi nga toog sa kër ñu sàcc la nga yeewu xam sa sàcc ngay taal sa caméra ñaar yoon lañu fi jàpp sàcc caméra surveillance imaginez marché bu toll nii dara la dara la ay milliards nekk fi amul caméra surveillance kooku mooy njiit njiit yi ko jiite jubuñu ay ñu lu leer ay sàcc lañ ñun nag dañ bëgg loolu deñ mën nañ ko dindi nag bu doon doole moo ko dindi billaahi walaay duñ doy mais Sénégal boo fajalee sa bopp buur teg sa kaw buur moo ëpp ñëpp doole mais ñu nañu buur dimbali am nañ yaakaar na ci nguur gu bees gi nekk ñi nga xamante ni yàgg nañ fi lool ñi ngi yëkkati ay kàddu di ñaan ñi nga xamante ni ñoo di autorité yi ñu xoolaat bu baax a baax daral bi ndax daral bi mérité wut tey jii ci loxo yi mu nekk ba tax na ñi ngi dénk autorité yi ku ci mel ni jiitu réew mi ak gouvernement yam ñu dimbali leen te jëlee fi ki nga xamante ni moo leen jiite di wuyu ci turu du taal tey mën naa ne lu ñu am tey. européen di ko am ci nit koo xam te dafa émigré ji ñun loolu la am ci marché bi ci lañ jëlee soxna fi lañ yoree kër ci lañ dimbalee suñuy mbokk fi lañ amee njaboot nu ñu mel dara la mosuñu fee jël alalu jàmbur pël mosu ñoo taxaw pour pour bor mosuñu fee naan mosuñu fee tox mosuñu fee sàcc suñu fee def dara loo xamante ne rek yoon da koy tere mosuñu ko fi def a ah, li ñu naqari nag bari na dañuy mën a wax lii rek ñeneen wax leneen li tey kenn ku ci nekk boo xaree xolam am nga la naqari trop waaye nag dañoo toll ci réew moo xamante ne ne changement lañ wax changement nag comme am na dañoo bëgg suñu daral gi changer ni muy changer mooy pël bi nga xamante ne mooy wàcce xaram am na ci lu ko naqari kiy jënd ci pël bi xar samp samp keesam di jaayaat muy teefenke bi am na lu ko naqari ki nga xamante ne tey bu xëyee sax jënd xar génn ko ci taabal bi jaay yàppam am na lu ko naqari jaaykatu ndox yi nga xamante ne sax dañuy jaay ndox fii ak jaaykatu ceeb yi am nañ lu leen naqari ndax bu deral gi méttee nooy jaayee sa ndox bu deral gi méttee nooy jaayee sa ceeb te kenn ko ci kenn ñu ko teg mu muy Mamadou Talla bu fekkee ne dañoo bëgg a def benn affaire fii ñëw di ko def sax mu woo mu woo police wala mu woo kenn pour jéem a yàq loolu jéem na diviser diviser jeunes yi nekk fii yëpp dara gi nag mënta génne booy bu timis passé génne 2000 francs booy génne xar 2000 francs ngay fay bu timis passé booy génne nag 3000 francs ngay fay douze yi comme ni ko maam Mor waxee soixante dix mille au moins nga encaissé ko par jour te du ci poosam la ko defaree maal bi nekk fii au moins magasin treize magasin donc magasin bu nekk di fay quarante mille ak magasin yi nekk ci côté peggaraay bi di fay au moins quarante mille francs ak cantine nga xamante ne état moo ñu ko may jaarale ko ci maire Dalifort jox ñu ko ah cantine yooyu mu yëkkati ay ay ay ay ay mbokkam ak ñi muy àndal sédd leen ko kenn ku ci nekk di fayeeku di def sa poos beneen bi ci topp camion yi nga xamante ne man li ma gën a metti ci affaire bi am naa lu ma metti mais jula yi ñoo ma gën a metti jula bi tax ma xëy si fii julo bi tax yow mii tey nga ñëw fii di def lii ndax boo ñu fi fekkul woon koy koy taalal sa micro jula bi moo tax tey jula boobu tey day jugee euh, àll ba deux heures du matin ñëw fii su ñëwee wàcce xaram fay fay vingt trois mille francs cinq mille francs bi ñu ne kat nañ ko dimbalee keesu daral benn bi jëm ci maire léegi quinze mille francs cinq mille francs boobu ngay ngay la jula bi di la jox ana ana ana xaalisu cinq mille francs jula bi plus de quinze camions dugg fi par jour wala léeg-léeg trente camions dugg fi par jour wala léeg-léeg quinze camions wala vingt camions dugg fi par jour xaalis boobu yëpp nga dajale ko julo feebar fii ay mbokkam ñoo koy yelwaanam jula réer la alalam tey bu fi cinq mille francs boo ko ci denculoon deux mille francs dajale ko moins nga abal ko benn un million bu demee liggéey nga ñëw delloo si xaalis boobu est-ce que doo dimbali jula bi jula boobu tey sonn na dañ koo mënta wax parce que dafa créer ay dix personnes ay pël ne ñoom ñooy jula yi boo gé ñoo ñooy génn naan non ñu ñooy jula yi ñun amuñu problème nangam nangam déedéet jula yi du ñooñu jula yi sonn nañ bu ñu wàccee am na ñoo xamante ne dañoo dem loué Daaru Salaam deux heures du boobu ci lañ kërën kërën di dem naan dañuy dem tëddi bu ñu tëddee six heures du matin la ñuy ñëwaat mën nañ leen agressé ci yoon wi magasin yi ñuy loué jula amul fu mu ci tëdd ci suufu mbaar yi la ñuy tëdd te seen xar amuñu fu ñu ko def jula dañoo sonn jula yooyu tey ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk ak ñoom sax li ñu leen mën a dimbalee moom président bi dimbalee wu leen te carte falu ko dañoo bëgg nag ñu def benn vote ñu dimbale ñu ngir yàlla ñu am changement daral gi nekk ci dëgg ñuy dox ci dëgg jeunes yi am na ñu bëri ñoo xamante ne mënuñoo wax li tax mënuñoo wax mooy ñii da leen di woo ci ci yenn ñi mu nekkal mu di leen jox ay cent mille ak deux cent mille ci suñu xaalis beneen bi ci topp ñi nga xamante ne aussi tamit euh, dañuy dañuy xëy ci daral bi yow dalal gi di nga xëy fii doo gisee quatre personnes cinq personnes ñoom ñoo fiy gaare oto ci marché bu toll nii est ce que loolu dëgg la moom mi nga xamante ne ne moom mooy président dalal bi est ce que dina ñëw du fi ñëw mu ngi seeraas yow nan ngay nekkee chef de personnel seeraas du nga toog huit mois sept mois doo dugg dara xamoo lu fi xew xamoo dara les gens nañ lay jox dale ngay sa toog sa kilim bu ngoon jotee nga dugg sa 4 x bu am clim nga dem si yoon ku wax nga nga nga nga nga nga jaxase leen seen biir pour ñoom nañ xeex jaxase na Maam mii di wax ak ki nga xamante ne moom mooy euh, jarbaatam jarbaatam si gardien yi la bokk jaxase leen fii quatre gardiens ñoo fi nekk au moins ñu leen di fay soixante mille wala soixante dix mille francs par fin de mois léegi nga bu nekk day fay mille francs fii euh, deux mille francs par fin de mois plus de euh, mille caisses loolu rek defe naa ne boo ko xaajee xaajaat ko fay na gardien yi léegi la des yëpp plus de ay sept million par fin de mois ana xaalis boobu léegi mu ne bu ko kenn wax. soo ko waxee mu fexe ba jaxase la ak pëli boo ko waxee mu fexe ba jaxase ak yi fexe ba yóbbu kaso. waaw euh, dañuy njëkkee dañuy dañuy cité ñeent lañ ci yaakaar bi ci njëkk mooy maire bi maire Dalifort bi ñu ngi koy woo ci mu dimbali ñu deuxième bi mooy préfet parce que moo fi moo fi jomaay troisième bi mooy ministre bi quatrième bi mooy son excellence Bassirou Diomaye Faye ñu koy am mu dimbali ñu parce que nag ay jeunes la ñu bëggoon changement trop mu dëkk bi amee changement. ñun fu changé te fii changé lu ñu saf parce que xamuñu fu dul fii duñ xëy dem hôpital duñ xëy dem école duñ xëy ñun fi ñu xëy fii lañ jëm bu fii bu fépp changé fii changé wul tamit du ñu neex dañ bëgg fii am changement am jub am kees goo foo xam ne dañu am gestion bu baax liggéeykat kuy liggéey gis sa bopp parce que fii lu fi lu fi baax nag ñun ñoo fi baaxal bu jamono da nga dégg ñu naan saras daral kërëb kërëb non ñun ñoo volonté wu dindi fi lépp. ñun ñi ñoo volonté wu dindi fi lépp ñun ñi ñëpp nga gis yéen gis yëpp amul koo ciy dem ci carnet police fekk ci turam muy malfaiteur déet ngay dañuy jàpp malfaiteur teg ko ci yoon yóbbu ko police teg ko ci yoon léegi amatu fi fii actuellement moo mooy milieu bi ëpp sécurité actuellement ci Sénégal dara bi fii waaw léegi nag bu yooyu amee li ci des nga xam ne mënuñu ko récupérer suñu bopp yoon nañu ko mën récupérer parce que mënuñu ko xëy dem ci ki yor duusi ki mu jox duusi xeex ak moom su boobaa mën nañ yoon mën na dal suñ kaw wala ñu ne xaalis non non dañu bëgg ñu teg ko ci yoon xaalis boobu di génn teg ko foo xamante ne si ñëpp koy gis ñëpp koy bokk am ay trésorier trésorier lu mat trente personnes bokk ci bureau boo xam ne dañuy xam chaque jour lay fiy dugg chaque jour lay fiy génn ñu amal ñu ay caméra surveillance nag parce que dañuy sàcc fii dañuy sàcc pël yi ci dañ leen sàcc sàcc bu méttee méttee métti seeraat lay tujji quatre heures du matin nga kër di nelaw sàcc bi ko neex mën na fanaan fii bu seras bi mu sàcc mu sàcc xar dem dugal ko biir seras foo ko amul amul ko benn assurance foo ko jàppee dañuy dund situation yu méttee méttee métti dañ koy dund ñun waa fii. gannaaw bañ leen dégloo ñoom ñi fare foofu si bile marché doon nañ jéem a tenter di woo ki nga xamante ni moo jiite bile marché waaye su ñu ko woowee saa su nekk téléphone am day sonné. lu tax na tey jii di xamal ne ñi ngi tijji suñu buntu ki nga xamante ni moo di président bi soxal nañu ngir ñu indi ay leeral ñeel li nga xamante ni moom la ñu nemmee fii ci daral bu Dalifort Fora